sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sëñ Touba di wax ne effectivement tey dañoo ñëw tey fii def séminaire bi ñuy wax di waajal màggal julli géej gi bi nga xam ne dina am ci ñaar fukki fukki fan ak benn ci septembre weeru septembre fii ci jàmmalaay parcelle di wax ni lii lu ñu war la ndax sëñ Muntaxa xalif général des mourides moo ñu dénk liggéey bi donc ñun dañoo war a góorlu fexe ba liggéey bi tegu ci yoon aw yoon nuñ ko mëne nit motul nag waaye ñu fexe daal rëx yi ñu wàññi ko nuñ ko mëne moo waral tey ji ñu tase fii ak comi commission yi ak membres yi nga xam ne ñoom xarañ nañu ci liggéey boobu ñu ñëw pour waxtaane ko loolu nag point yi dana toll na ci juróom-ñaar ñu ngi war a waxtaanee ci communication parce que communication lu am solo la pour gën a fësal liggéeyu sëñ bi ak njàng njàng njàng gi ñu sëñ bi jàngal xam ne buñ ci ñëpp tënkoo nee naa même état yi sax buñ ci tëkkoo kenn dootul réer ñëppay nekk ci yoon ñëppay tegu ci ñëpp am jàmm muy plan de communication moom ñu teg ci bopp ñu teg ci. ni ñuy doxalee CRD bi ñuy waajal ñu teg ci organisation matérielle organisation matérielle nag lu diis lu rëy loolu itam foog ñu waxtaanee ko bu baax a baax a baax ñu teg ci budgétisation loolu ñu doon wax maanaam wàllu koom-koom koom-koom bi fu ñu koy jëlee ñaata la war a doon et cetera ñu teg ci nuñ koy amee koom-koom daal ciy teg nag loolu ñuy wax thème bi maanaam. maanaam euh, euh, euh, thème bi nga xam ne moom mooy moo koy moom la ñuy teg ci ci boppu liggéey bi loolu yëpp dañ koy waxtaanee tey ak commission bi am nañ yaakaar ne buñ ci buñ ci fii ak ngoon mën na am loolu yëpp daal dinañ ci kii pour mën a dox ci yeneen jéego ndax xam ngeen ne yëf yi soreetul mu ngi ñëw. dëgg la bañ koy def ci tàmbali ba kuréel bi ba mu koy def ci tàmbali ba centenaire bi la woon waaye bañ ko defee ba pare bañ demee ci sëñ ba ku tedd ki sëñ Saliou Mbacke yàlla na yàlla na yàlla. yal na yàlla taas ci barkeem te dolli ay leeram sëñ Saliou moo leen digal ne nañ ko wéyal def ko bisu ndakaar mooy xam ne bis bu gën a màgg ci ndakaaru ci yoonu murit looloo waral ñun itam ñu nekk ci xam ne at bu jot ñu fàttaliku innovation mooy li ma leen wax rek mooy fexe ba def li gën rek l'excellence ci tubaab la perfection kenn mënu fa àgg nag waaye ñu ñu ñu jéem luñ ci mën mooy point yi ñu ma leen wax rek fexe ba jéem yuñ ci mën ba nga xam ne rëq-rëq yi daal dana wàññeeku lool waaw waxuñu du am nag waaye mu wàññeeku waaw loolu daal moom laa gis ci innovation ak itam woo boroom xam-xam yi ñu ñu màcc ci yoonu Sëñ Tuubaa ñu jàngal gone yi jàngal préparer xale yi war a ñëw ak àdduna bi ñu xam enseignement Sëñ Tuubaa waaw waaw retombée spirituelle am na boobu moom sikkiwul am na retombée économique mooy li ma leen waxoon sànq rek parce que bu yëfi jegesee di nga gis foofu engouement bi ak lépp lu jëm ci lislaam nit ñi danañ ko danañ ko dana yëngutu nit ñi bëgg a xam lu xew bu fekkee ne ñun am nañ ay magazine danañ ko bëgg a jël pour xam bu fekkee ne am nañu ay tableau yu jëm ci wàllu Sëñ Tuubaa dañ ko bëgg a xam ak lépp lu jëm ci lislaam ah loolu dana dana kii comme màggal rek màggal bu mag waaw loolu itam liggéey bu mag la danañ ko leeral ndax nit ñi dañuy jaawale ndax yëf yi dafa jege déjà cinq septembre mooy bii bii di 21 septembre donc ñoom dañuy mën a xaw a jaawale waaye nag lañu ci waxoon rek léegi la dañuy fexe rek koo ci wax rek nga leeral ko ni ko bii julli sunna la woon bii julli farata la di ko leeral te ci communication bi daañ ko leeral oui feeg ñuy dox nag dana dana mën a dana mën a gën a kii axa kay danañ jokkoo ñaareel sax su ma juumul vice président mi ngi nii da am ñoo xam ne danañu teewal ci bis ba ñoom itam dana am ñu ñëw teew ci bis bi ndax ñoo bokk liggéey bi. thème bi proposé nañu benn thème dañ ci bokk na ci li ñuy waxtaanee tey xam naa ne fii ngoon incha allah dinañ ci am lu leer. waaw ñun ndigal la ñuy wéyee ñun lu sëñ bi wax rek la def sëñ bi dafa seet li gën mu defe ko bëggul xam naa nit ñi nekk ci fitna wala ak itam màggal gi doon jege si dégg naa Cheikh Bass gis nga ni mu ko waxee. donc ci loolu rek la waaye ñun ñépp ànd nañ ñoo bokk lépp lu sëñ bi wax rek ñu nekk ci Voilà mbokk internet yi ñu ngi leen sant bu baax di leen ci topp seen chaîne YouTube Tawfekh Production du seen boo xamante ne bii moo ñëw ngir di yëgal lépp loo xam ne mooy xew ci réew mi ngir ñu ànd ak ñun nag da dem ci YouTube bi ngeen tàppee Tawfekh Production a Production ngi noonu mbokk yi yéen a tax mu jóg.